taxawaay bi des koy rafetlu parce que comme ni ma ko waxee su fekkente ne ñun en tant que personne vivant à l'UVH yegg si nañ ci taxawaay bi c'est parce que dañuy nangu taxawaay bi nga xam ne bi état taxaw na ko ca départ ba mu permettre ñu am espoir de vie mën a indi en toute responsabilité suñu contribution ci xeex bi mais teewul. malgré que effort yooyu yëpp am nañ dañu bëgg a attirer attention nit ñi parce que kiy wax li muy wax da koy dund bër bu set prévalence bi wàcc na mais boo demee ci hôpital yi nit ñaa ngi sonn nit ñaa ngi dee parce que amuñu xaalis bu ñu fajoo kon moo tax ñu ne maire yi baax na déclaration yi parce que lépp ci déclaration lay def mais sàkku naa ci ñoom bu ñu fi dajaatee suñu koy évaluer mu nekk loo xam ne dañ ko mën a xayma téye ko te loolu lu mu mën a doon mooy dañu bëgg xam ne ki feebar tëdd hôpital du ay ñaan moo koy yëkkati ñaan baax na trop waaye xaalis moo ko faa yëkkati parce que bilan la ordonnance ak lekk loolu xaalis rek moo koy régler il faut que nit ñi nangu gëm ne doomu jàngoro sida mi ngi fi. mais il faut que aussi ñu bàyyi xel xale yi nga xam ne yi ci responsabilité état responsabilité collectivité locale responsabilité d'un color société Sénégal parce que ñoo dugal boot di joxoñ ba tax na tey am na waajur yoo xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro sida ñemewuñu dem hôpital ci jamono ba ñu waroon dem hôpital pour toppatoo seen doom ba nga xam ne bi den ko xale yooyu dañu feebar tey xale yooyu ñu ngi dund ak doomu jàngoro sida am ay jafe-jafe xale yooyu ñu bari ñu ngi seen njàng mi ngi yàqu parce que donc alors bi ñu leen joxe seen information dañu jaxasoo mais xale yooyu tey am na ci ñoo xam ne ñi dañuy bàyyi garab yi ñu jël parce que xiif moo leen jàpp xale yooyu tey donc du ñu assurer passe pour dem su ñu demee ba fi ñu amee seen baccalauréat war a dem université néew doole seen waajur tax na ñu bari ci ñoom bàyyi nañ jàng moo tax ñuy sàkku ci. askanu Sénégal ak ku mën a doon foo mën a toll ak loo mën a am kenn ku ne jël engagement def dërëm ñu def ko ci xeex doomu jàngoro sida parce que lu mu jëriñ dana permettre ñi dund ak doomu jàngoro sida ñu mun leen gunge ñu dund correctement mais dana permettre aussi ñi dund ak doomu jàngoro sida mën a sas seen bopp ne dinañ fexe ba feebar bi dootul jiyee ko ci ñoom dem ci keneen ca jeexital ba Sénégal mooy am. doomu aadama yu fi nekk di dund ànd ak wérgu yaram kenn ku ne mën a dem yëngatu ji pour développer Sénégal meeru euh, Thiès sama wax dafa leer parce que démb ak barki démb dama koy suivre ci ay doxalin ay jëf yu muy def ci biir Sénégal bi ñu ñëwee di ko seet si pour def plaidoyer ñi ma àndaloon dama leen noonu man ñëwuma ci taala si la di ko wax ne ko defal nangam parce que xam naa ne danga ko la loolu lu muy def la parce que jamono ba mu yoragul responsabilité da am dafa am lu mu daan jëfee di ko waxee kon su demee ba am responsabilité dana gëm na ma dina def déncolore pour dimbale nit ñi te effectivement def na ko mais dama sàkku woon ci moom pour que mu gàddu robe boobu mu sol en tant que maire fexe ba ñaax ay nawleem maire pour que ñu mun ko fekk si fi mu toll pour ñu xeex doomu jàngoro sida parce que ak lu mën a xew nag sida mi ngi ci Sénégal te doomu sénégalais yi lay laal. Merci. Merci.